Son Brand eh, yow maa leen di béggewaat bu baax a baax di ko béggee moom meen Sergent suñ premier niveau ñu teg zëm fii ci xam nga Bakel 24 tey ma dalal Baye Mbool bu Wowra Record bu 100 pour cent underground gain la boo xamante ne teg na affaire yu bëri pour booy mën a réussir teg na affaire yu bëri pour wéyam gën a mën a dox pour loo xamante ne tey dina ko dina ko def pour hip hop LG yëkkati ko pour hip hop Galsen gën a dem ci kanam tey ñu dalal ko ñu bàyyi ko mu nuyoog ñun salaamaaleykum Baye Mbool. waaleykum salaam maa Son. di siyaar sa technicien Serge di siyaar aussi ñi nga xam si ñu ngi suivre yëpp Bakel 24 TV waaw di wax rek Baye Mbol la comme ni ko gars yi xamee artiste rappeur du nord Baye bu Xaaba nekk buur Wawraab Record et président 100 pour cent underground association culture urbaine des acteurs culturels inconnus gis nañu que ni da nga ñëw créer sa sa sa labelu bopp sa affaire bopp euh, di di di jóg di daanu ba affaire yi taxaw tey jii nii euh, nga commencé ko woon ak li nga xamante ni moom mooy benn label boo xam ne mooy rab Record gars yi bëri xam nañ ko parce que y'a beaucoup d'artistes yoo xamante ni jaar nañ fa enregistré ah euh, ñu doon gis que ni moom mu ngi doon promouvoir ay boy yu bëri mais dañ dem ba ci biir gisatuñu label boobu lan moo waral que ni label boobu dafa toog seen baay wala label boobu dafa nekk ci yeneen quoi. waaw waaw parce que sunu sunu première euh, structure bu nu bu nu njëkk a sumb loolu la waaw rab la woon jamono boobu ñu ngi nekkoon si ay projet ñaari jëmp may bi donc et à ñu pene pour am liggéey bi nga bëgg wala soit nga am ci satisfaction bi nga bëgg donc comme ñun ay bañkat lan voilà ñu xaaju dem donc di di enregistrer suñu Euh, malgré qu'on n'avait pas la qualité professionnelle mais euh, mon nañ la qualité de xam si mën nañ ko et c'était ça quoi il faut démarrer par quelque chose euh, en mangeant l'appétit vient non la affaire demain, donc non lañ démarrer tek wawra Record euh, gars yi gis liggéey bi ñu def pour nous, bop. Bo yu bëri apprécier ko ñu bëri apprécier ko ba ñu bëri ci ay contact bëri ci ay appel ñeneen ñu di ñu solliciter ak donc ci biir affaire yi ñu dem ci biir donc euh, fi conditions nekkoon bon euh, am fa nekk donc ñu déménager affaire delloo ko ci diwaan ba donc bu ñuy amee prise ak dañuy sacrifier la famille pour prise ci biir donc condition yooyu wéy tax job bi donc pour xaar xaarandi donc aussi ñu jël tamit le temps de réfléchir xam ni bon liggéey boo gis rek dafa laaj professionnalisme donc ñu dem defi formation en ingénieur de son et production musicale donc fi may waxee yow nii ñu ngi seen suñu diplôme donc on est prêt à à conquérir le monde xeetu musique bu mu doon mën nañ ko liggéey mën nañ ko mën nañ ko préparer mën nañ ko produire donc te loolu moo doon solo si quoi bu Wob Rab Records tegaatee ay bagaasam rek ñu xam ni bon li fi nekkoon ak li fi wute mbool euh, kenn dootul na tablette kenn ndax mbool xam nga lu lu mu def ci hip hop LG ak loo xamante ne jot na koo jaayante tey ba mu teg affaire yu bëri gis nañ que ne da nga jógee ci wow raab record ngay xuus di jàll xam nga yenn saa yi muy metti muy dëgër nga koy dajale ba nga taxawlaat beneen structure boo xamante ne muy cent pour cent underground nga regroupé ci ay boy yu bëri waaw bu ko d'artistes yoo xamante ne ñu ngi ci yoo xamante ne ci 100 pour cent underground 100 pour cent underground ba nga koy teg da ko xaaroon ci benn côté pour mën a teg ay festival wala wara ba Bah, je peux dire que l'objectif c'était pas un festival hein parce que xam nga Louga gaay yi moom yow mii bu la neexee boo bëggee organiser concert nga organiser concert te fii gars bu festival li li ñuy njëkk a jàppe festival mooy concert xam nga te festival du concert quoi voilà mais objectif 100 pour underground au début c'était pas pour teg concert mais c'était juste que Louga en avait besoin xam nga le hip hop en avait besoin quoi parce que tamit dafa am structure yu fi nekkoon qui se dise hip hop mais bon la représentation n'était pas parfaite quoi donc te ba nii nii sax peut-être ñu bëri ñu ngi koy jooytu ñu ngi koy ñu ngi koy déplorer mais bon loolu moo ñu moo ñu moo ñu kii ban ni nan dem donc am suñu autonomie bopp pour mën a def suñu ambition yu ñu bëgg a teg pour boy yi quoi donc ci loolu lan lan lan tegee suñu association boy yi adhéré ci fekk suñu ci ba tey loolu taxaw mu 100 underground donc mu a ak structure bo xam si Wawrap Wawrap c'est une structure entreprise individuelle donc mais 100 underground c'est une association donc bu regrouper ay artistes regrouper managers, regrouper méloman ñi ci nek bëri na donc ñu nek ci bir ñu tek ko et suñu credo suñu premier objectif moy fexé ba boy yi am ay qualifications sur les métiers de la culture

bëgg taxaw représenter acteur culturel dignement donc un acteur culturel dafa war a gëm boppam lu ci parce que euh, la culture léegi métier la dafa bañ ba léegi état daf ko signé mu nekk ci convention tout léegi artiste métier la bu la neexee sa carte d'identité nga remplir ko ni man artiste la parce que c'est reconnu par la loi donc ci loolu nag am na ay métier yu nekk ci culture bëri na yim régorger comprendre nga donc nag yooyu lañ bëgg a fexe ba former ci boy. yi ñu am ay qualification mën ko ak bëgg donc loolu ci solo miser la formation mais pour les événements mën après les événements loolu exprimer événement bu à 75 sur la formation donc après ñu canaliser offrir leen li formation et plateau d'expression ñu am xam ba pare am fu ñu mën a génnee seen talant wane ko fa ñu mettre leen en valeur c'est ça te on a des projets yoo xam si mi suñ kanam te yàlla baax na yàlla dina mootal incha allah. bien ñu gisaat nga nga nga ci biir label boobu nga xam mooy 100 pour cent underground gis nañu que nii yow jéem nga fexe ba ci label bi nga teg ci ay association association la nekkatul loo xamante ni labelu benn nit la quoi association la. <laughs> ayca 100 pour cent underground muy nekk association boo xamante ni dafa regroupé artistes yu bëri ma gisoon nga ci doon teg ay saay fa nan nga def ba organiser saay fa ci boo yoo xamante ni bokkuñu ay coin yu ñu nekk ñee ngi dakaar ñi Thiès whatever bëri na coin yoo xam boo yaa ngi fa mais teewul dañu doon bokk ci li nga xamante ni mooy saay fa yi nan def ba teg saay fa yooyu waaw au suñuy suñuy début activité nag bon xam nga 100 pour cent underground dañu démarré bi ñu démarré suñuy première activité donc li ñu mooy comme dañuy utiliser internet à bon escient donc ñu utiliser le groupe WhatsApp donc euh, gars yi adhéré yëpp ñu doon def ci biir ay échange ay plateau euh, atelier donc euh, des fois ñu invité nous invité ñëw mën a def ak ñoom ay échange ci ay ci seen i connaissance ñuy invité artistes yu mag wala ay connaisseurs donc ci biir structure bi ci biir nan laa ko mën a ci biir groupe WhatsApp bi ci lan doon defee formation donc ci lañ doon defee ay émissions donc ñun amoon un programme bien défini du lundi au au dimanche dañuy am un programme ñu di ko doxal pendant deux ans donc après nag ñu ni bon euh, comme def nañ benn saay mu jàll mais il faut cette fois ci ñu def benn saay fu boo xam si dañ koy préparer moo xam si day ñëw ànd ak aussi festival bi quoi donc wala soit bu ànd ak festival bi aussi ñu def saay fu boo xam si voilà le vainqueur sera primé donc loolu lañ démarré ñu démarré nag bon def saay fa ak quarante personnes mais li kii ci li doy waar ci ci groupe bi mooy dafa bëri ñoo xam si ñi ngi Louga lan dëkk te nekkuñu Louga donc da ngay yaakaar ni dëkkuñu Louga parce que ba ci les finalistes am na ñoo xam si ñii daaru musi lan dëkk ñii ndànd xam nga yooyu yëpp Louga la bokk donc pour diir que ni rek euh, association bi affaire bi dafa yaatu fii ba fii ba Kër Momar Sarr ay am na am na ay participants yu ci nekk donc c'est que bu ma bëggee lim tuuri damay juum parce que dañuy tuuri ñooy bëri sama bopp ni ba bëgguma juum quoi mais bon ñoom ñëpp ku ci seetaan di nga xam sa bopp quoi donc ñi ci bokk bëri nañ ba Kébémer ba Ndar ba ba ba foo mënti nekk am nañu mbokk ci biir association ba ba Mbour ba ba ba ba ba Tamba mhm. donc te loolu lépp li koy def rek mooy hip hop hip hop moo amul frontière donc ñoo bokk lu mënta séddoo donc gars yi di gisante bu ñu gisee compétition saafa yi affiche yi daw gars yi woote ne dañuy bokk ñu leen ay ca ñu bokk ñuy def tri xam nga di def sélection affaire yi di daw compétition bi di daw ñu démarré ak 40 artistes ba tey jii ñu ngi ci 6 yu war a dem final. Eh, c'est de lourd affaire bi job bi job bi yàgg na mais teewul def ngeen ko ak ak ak euh, job professionnel. parce que gis naa ne que ni 40 artistes nga démarré ko tey ngay dem ba fi nga xamante ni nga dese tey 6 ba nga jógee ci loolu am yeneen artistes yoo xamante ni ñoom tey bañ ci bokkee ñi gañe lii ñi dem fi euh, ñii di waaja li nga xamante moom mooy euh, final bi mais dañoo gis que ni leneen loo xamante ni yaa ngi koy préparé muy un festival boo xamante ni su ma waxee mën naa wax que ni bu amee Louga tamit bëriwul boo xamante ni 100 pour cent underground la euh, benn underground taxaw teg benn affaire benn projet muy xuus dem ba tey jii nii muy yootu li nga xamante ni pour teg euh, benn euh, festival yombul woon ci artiste ci artiste euh, underground nan nga def ba teg loolu noonu ci artiste underground. waaw ah, mais loolu mooy projet projet projet bi bi ñëkkoon a nekk suñu boppa ah. parce que comme man underground laa man ba léegi man maay buuru underground yi ah <laughs> ndax ba léegi kenn xamuma donc kon xam nga underground laa 2001 ba 20 non. mais maanaam xam nga xam nga ku génn underground bi mooy ku génnee un produit international wala national quoi. mais bon xam nga ñun moom ay underground lañ ba léegi vingt ans ko ci nekk underground ko quoi. donc suñu objectif mën naa ni atteindre gun ko parce que festival bi li ñu bëgg mooy dajale underground ni ci Sénégal yëpp à Louga loolu mooy objectif 100 underground mooy fépp fu underground nekk ñu daje Louga chaque année ñuy daje Louga pour benn festival boo xam si underground ci Sénégal yëpp la ñuy comprendre nga nous une semaine bo xamni si dañuy wër koñ par koñ defa ñu bu dem une semaine underground bi di vibrer au rythme du hip hop ay artistes xam si ils sont talentueux te kenn ñu ban xamni rap nga festival underground mais bon comme les moyens ne suivent pas ñu jël li am ñu def pour la première édition ñu def li munta ñak di espérer aussi yeneen édition yi ñëw muy gën a yaatu di gën a donc mais c'était pas évident au début mais affaire yi gëm-gëm la ak persévérance mën na ne man sama la quoi man quand je vise quelque chose dama mën na quoi ah yàlla baax na mën na ne bu ma ko gëmee yàlla dina ma si après ma dem parce que li def bu pour man dong amaana du ma ci sonn quoi mais comme peut-être da koy def après te li ngay def ñeneen ñoo koy jariñoo mhm. donc defar rek li nga war a def parce que comme ñun ñoo opté jàppale booy yi donc mënuñu bañ a def loolu quoi donc danañ ci danañ ci danañ ci fësal euh, underground bi nekk Louga danañ ci fësal aussi yeneen underground yi nga xam ne danañ jóge fene fu ne fu ne ci 14 régions yi ñëw mhm. donc ak yenn guest yu nu invité ñu ñëw aussi voilà ba léegi gars yi ñu ngi leen di béywaat yi ñi nga xam ne ñuy séywour fi nga xam ne mooy Bakel 24 tey ma dalal euh, Baye mbool bu 100 pour cent underground bu Wowrab record whatever gars yi xamee ko bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy hip hop LG Mbaol gis ñi que ni yaa ngi waajal mooy sa festival festival boo xamante ni 100 pour cent underground la euh, jafe na nag pour benn artiste boo xam ne mu teg festival fu nekk di nga ko daj fu nekk di nga fa dugg fu nekk di nga fa jaar lijjanti yi muy dëgër këcc nan ngay wajale fi nga festival son <laughs> ah. mais bon euh, avancer aussi te remercier As malik le vice-président de l'association euh, di remercier Lifa donc aussi il est le président de l'organisation euh, di remercier Baizal, voilà di remercier bii voilà donc équipe bi fi nek dal xam nga nek ci ci affaire yi fo nek ñu nek fa xam nga nek sa wet nek sa kanam nek sa ginnaw xam nga foo ta nek ñu nekkal la fa quoi donc mais bon maintenant mais quand même xam nañ ko ah, quoi avant ñukoy def <laughs> xam nañ ni organisation yombul quoi dafa metti parce que yow yaay yow yaay def mm-hmm. donc ñeneen ñi moom dañuy toog seetaan quoi ba affaire yi ñu ñëw mais bon yow la quoi yow yaa ni yaa yaa yaa ko donc gars yi dañ lay seetaan ak sa yen quoi donc ñu ngi tëñëx tëñëxee moom te incha allah dinañ ko teg fi ko bëgg a teg. aussi dinañ ko def loo xam ne si bëgg nañ daal def loo xam si pas pour 100 pour cent de underground wala pour Baye Mbaol quoi mais pour artiste quoi parce que tamit suñu faayit loolu la quoi maanaam relever. le niveau au, niveau de Louga parce que tamit franchement ça nous désole un ñun ñaa xam si ay grands frères lan buñ gisee niveau bi fi mu nekk ba tey te buñ sañoon mu dépassé fii quoi donc ñun suñu contribution la ñuy def ci ñépp nun ko mëne pour dellowaat niveau bi rehausser ko quoi yëkkati ko mu dem ci kaw quoi parce que bu ñuy wax hip hop LG di gis ay boy yu taxaw di génn di gis ay produits yu naaj di fi génn loolu ñun suñu satisfaction la quoi donc parce que dana kon ñun ñen bàyyil puso bi wala soit ñi ñi nga xam si relève la euh, donc mujjewuñ affaire yi mu réer quoi donc loolu mooy suñu objectif quoi donc li ci des nag après ñoom la ñoom ñooy am ambition wu xool seen bët ca kaw am am fu bëgg a àggale seen carrière am fu bëgg a teg seen bët quoi donc mais ñun ñi ngi li ñu war a def ñu ngi koy def ñi ngi fexe ba tegal leen euh, xàllal leen yoon bi daal donc après léegi nag ñoom ñooy ci ñooy tegu ci yoon bi wala mooy loolu. bool ba léegi gis nañu que ni teg nga ko mu nekk ay fina mu nekk euh, saa yi euh, nga xamante ne festival boo xamante ni tey gars yu bëri ñu ngi koy xaar nga def ko muy trois 4 cinq jël trois jours yoo xamante ni tey euh, day saf-saf ak hip hop te bëri na ay affaires yi ciy am muy. ay ateliers yo xamanteni ay ay formation yo xamanteni yépp yëpp yaa ngi ko insérer ci biir li nga xamanteni ni moom mooy ci ci ci ci festival boobu noonu quoi tey fan nga toll ci affaire boobu noonu est-ce que lépp pare na pour euh, deux jours yi avant concert bi est-ce ndax lépp pare na. waaw bon <laughs> su ma nee lépp pare na est-ce que kon ñu ci war a jàpp daan si jàpp <laughs> bon waaw ñoo ngi ci daal te am nañu yaakaar quoi lépp dina disponible à temps incha allahu rabi voilà. te incha allah euh, lépp dina jàll te lépp luñ ci yaakaar bu bu yàlla deful ndox ci diggante bi te yàlla nañu yàlla taxaw ba def ko si jàmm ak salaam waaw bu yàlla deful ndox ci diggante bi lépp dina jàll incha allah rabi bon ñi ngi ñi ngi ci préparé plein de choses mais surtout li ma doon waxtaane léegi rek muy volet fexe nan la ñuy waxtaane ba indiwaat hip hop bi ci niveau bi mu nekkoon maanaam te loolu pour mu am il faut d'abord que ñu xool ay solution waxtaan ci problématique yi teg ay voies yoo xam si peut-être buñ ko jëlee dana mën a dem et ci loolu aussi on a sollicité euh, appui wu ñi nga xam si ñoo fi nekkoon ci début ba faayet ba tey hip hop LG ñu bëri ñemee taxaw di kii quoi donc ñi ma jamondoon lool ci game bi ñoom laa sollicité ñu ñëw gérer loolu quoi donc euh, danañ am euh, ci côté management danañ am Iba donc moom il laa là fa am euh, Vito bu ndigal ji ak Black bu ndigal ji donc dinañ fa am euh, Diop Diagne Mamito euh, hmm, Bilal Kalam wantu wan dinañ am Hamadine voilà dinañ jéem a am aussi tur bi laa fàtte mais ki njëkkoon a jiite. avant njàmbur hip hop amna benan Asia association bu mu njëkkoon a pur ama jéey pour ñu waxtaanee les problématiques du hip hop causerie premier jour bi loolu la def dañuy toog ñu waxtaanee hip hop luga, wala hall, nan la def ba teg structure yu hip hop pas yu représenté seen bopp nan la def ba structure yi nekkal fi hip hop nan la def ba wuti ay affaires indi mu nekk njariñu hip hop njariñu culture njariñu Louga parce que tamit. la culture moom moo gën a gaaw pour indi développement mais nag pas développement personnel def sa poos mais développement boo xam si tey jii mën na yaatu comprendre nga tey jii mën nañ ci defar leneen ak leneen mën nañ ci yokk cité bi mën nañ ci yokk xam-xam booy mën nañ ci former ay booy yi parce que africulture ji hop ji hip hop ñu gënuñuñu pourquoi ñoom ñuy def ay réinsertion di former ay booy ba di leen jël di leen employé booy di génn di jëm feneen ñu leen di employé mën nañ ko mais est-ce que am nañu am la volonté donc ñun ci optique bobu la nek donc motax dañuy dégager ay voix té nak lepp lu ñuy def dañ koy tek ci respect bu amul respect duñ dem motax boy bu amul respect ñu liggéey respect bobu motax ñu indi ñi ñiko xam si ñom ñoo xàll yoon bi tay ba boy bu nek mëna taxaw ni man may king wala may chef fi ni ñooñ ñuy ñew waxtaan ak boy xamal leen ni ñun liñ fi defoon sax dindeegu leen ko ba bëgg prétendre être chef ou de quoi ou ce soit donc ñu waxtaan indiwaat ay solution tek ay perspectives pour yi xam nii ak ni buñ ko mu donc lolu mo objectif bi pour le premier jour ouverture festival bi deuxième jour bi ñu la journée au centre culturel avec des formations de euh, du matin au soir le matin dinañ un index bu ñuul kukk mu ñeu defal boy formation ci technique d'écriture expression orale donc expression orale nous avons ko waxé moy changer na ci bokk pour kat yi nga xam si dañuy bëgg a woy kii donc comme moom day woy ndaanaan la donc dinañ def technique d'écriture ak expression orale donc ñu def ko pause déjeuner am ñu dem añ xewlu dallu julli def yooyu ñëw def digital marketing ak ibaja le soir voilà donc loolu moom mën naa ñu du pour hip-hopeurs yi kese mais euh, Bakel 24 seen seen seen seen seen chaîne soxla nan pour ay compétences pour nan la ñuy jaayee seen via internet parce que léegi on tourne vers digital faaloo daf koy soxla tailleur bi nekk fee daf koy soxla comprendre nga euh, artiste bi daf ko soxla ki ki ki ki yor euh, puus-puusam di jaay te te yor affaire yoo xam bëgg ko di jaay ci via internet daf koy soxla ki yor cag-cagam bëgg ñu koy woo ci internet bi yooyu daf koy soxla donc ñëpp lañ ciy woo ñu ñëw yendu dinañ dinañ xewlu dinañ def lépp dinañ leen mettre ci condition yu cool ñu jox leen xam-xam bu ngoonee après ku nekk dem buñ xëyee suba ñu ñëw donc def euh, benn conférence de presse le 5 waxtaan ak presse bi ci objectif yi perspective yi ak lan ak lan lan def ci festival bi yooyu yëpp ñu xam donc la presse couvrir l' événement poser les questions ñu kii ñu relayer l' événement donc parce que presse bi aussi ci lan bokk donc le soir ñu waajal euh, concert bi

mais bëgg nañ yéegeewaat ci kaw seen ndigal ji bëgg nañ yéegeewaat ci kaw seen saay mën bëgg nañ yéegeewaat ci kaw seen ñaari jëmp donc mu nekk bonus donc en plus des invités et et et la crème hip hop lougatoise waaw. hip hop lañ nar a dund jour boobu. 3 4 5 naka gars di waajal bu baax a baax Louga ñu ngi leen di invité ñu ñëpp euh, Mbol li ñu desee ci waxtu bëreetul donc dañuy dugg vite fait ci li nga xamante ni moom mooy euh, wax nga léegi ni nga koy euh, programme bi nu muy déroulé donc mën mën nañoo tëjee que ni juste parce que defoon nga ay formation côté musical di genre ak yooyu noonu quoi tey tey yow lan nga war a apporter booy yi ci jour boobu noonu ndax am na lenn loo xam ne di nga ko defal ci ci ci ci booy yi nga xam ñu ngi lay xaar ci côté formation ak yeneen ak yeneen. on papa peut pas être au four et au moulin. <laughs> voilà. Donc, euh, amna idée, amna initiative, dem na sété les bonnes pers personnes ñi nga xam ci ñoom ko gëna mën gën mu ko xam. Donc pour ñu ñëw partager sen expérience bobu ak ñi nga xam ci bëgg nañu ñëw acquérir connaissance yi. Donc man dana tok ci public bi jang wala soit ma nek ci euh, ci ginnaw di xool lu manqué moo fexe ñu mu mat fexe ba mettre leen ñoom ñëpp ci ay conditions yu baax muy ñii ñëw di leen jàngal que ñoom ñuy ñëw di jàng si parce que tamit loolu mooy objectif bi quoi ñun dañ leen woo ñu ñëw donc dañ leen fexe ba mettre leen ci conditions yoo xam si danañ danañ fa jële lu ñu yóbbu quoi parce que rendez-vous du donner du recevoir lay doon bu soobee yàlla donc loolu mooy objectif bi bëgg nañ képp ku fa ñëw rek nga jële fa loo xam si boo demee xam ni un plus pour le 100 de underground apporteel am un plus pour le professeur ba fa nekk muy index que muy ibaja apportel donc c'est mooy objectif bi quoi mais bon man moom xaw ma dara man damay jàng comme ñoom quoi. <laughs> ci gars yi tey ñu dalaloon Baye Mboul ma jox ko rek mu def suñu dernier euh, mot loo xamante ni moom la ñuy tëjee parce que LG ñu ngi koy xaar muy festival boo xamante ni mën naa wax que ni sul am biir LG euh, mu bëri ay gars yoo xamante ni invité na leen ni Flows lu dëpp mu mel index parce que dama gis que ni indiwaat yeneen grand muy Black euh, Vito muy Simon gars yi gars yi namoon na leen trop. Euh, tey nga nar leen indiwaat fi nga xamante ni moom mooy lan ngay tëjee vite fait ci loo xamante ni eh, ni ñuy waajalee ak nga jox gars yi rendez-vous. voilà bon bi si jiitu rek mooy di wax gars yi ko ñu jàpp ci euh, la promotion de l'événement déjà ni ku ci nekk ni ngi ciy jàpp rek mooy affiche bi foo ko gis nga partagé. saa boo xëyee comme ni ngay estaté sa photo wala leneen la ñor nga estaté ko nga boole ko ci ni nga koy partagé ci Facebook bi nga def ko defe ko noonu ci Facebook ci fi nga fépp foo xam plateforme boo xam ne am nga fa compte déjà premièrement un acteur culturel bu ci nekk loolu rek lan la sas nga jàppee ko ci aussi ñoom ñëpp ñu préparé pour le 3 le 4 le 5 ku nekk nga bañ a xaar ñu woo la mais nga ñëw parce que xam-xam ba nga fay jëlsee euh, yow boo ko yóbboo yow yaa ko moom quoi donc yow lay donc les formations sont ouvertes à tout le monde na ñëpp ñëw ki formation yi donc di remercier aussi sun partenaires yi centre culturel donc di remercier la directrice japp na ci bu baax donc di remercier luka TV Bakel TV Busy Bits Entertainment Urban Links euh, SDS follow TV GScom euh, Showbiz International euh, Borom Luga TV. Euh, Bakel 24 euh, Louga News Wawraab Record Carrefour FM Nabi Vision donc di remercier les partenaires de près ou de loin képp koo xam si yaa ngi ciy loxo rek di donc je ngi lay remercier remercier aussi le parrain euh, le Dame Job, l'international footballeur donc li tax ñu choisir ko moom ak Mamito donc parce que Dame doomu Louga la football te ñu bëri xamuñu ko te doomu liggéey dañ leen war a fësal xam leen donc ñu jël parce que moom mooy porte moom drapeau donc euh, war nañ ko fësal ba xam ko donc support ni ci donc aussi def aussi gis nañ ko te xam nañ ni moom fierté di remercier Mamito mu actrice culturelle au niveau de Dakar mais mu fekkee na début hip hop faayet na pour affaire yi ba fi mu agsi donc noonu la demee ñu koy remercier di remercier Serge di remercier aussi euh, le patron ki nga xam ne moom lañ patron de événement bi muy Abdoulaye Diop euh, donc di ko di ko ñaanal aussi yàlla jàppale ko ci yëpp projet yi nga xam si taxaw na ci di remercier képp koo xam si de près ou de loin yaa ngi jàpp ci bagage yi aja gars yi ñu ngi leen di béggewaat bu baax a baax yi ñi nga xamante ne ñu doon suivre fi nga xam ne mooy Bakel 24 tey ma dalaloon Baye Mbool bu 100 pour cent underground Baye Mbool bu Wawuraab Record mu créé benn festival boo xam ne mooy festival 100 pour cent underground le 3 le 4 5 décembre fii à Louga bëri na ay yoo xam ne dina ci nekk ñu ngi woo gars yëpp ñu ñëw teew euh, ñëw support ki nga xam ne mooy doomu Louga euh, concert bi nekk le 5 la incha allahu rabi na ci gars yëpp bàyyi xel ñu ngi béggee gars yi nga xam ñu ngi doon suivre yéen ñëpp maa ngi leen di béggee waat bu baax di béggee sama copain sama sama réel jo ma main cher nga xamante ne moo cadré affaire ba mu naaj tey ñuy béggee waat tamit Abdou Dio euh, xumaan ma main ñu gën koo xam yaa ma gën a xam quoi tey mu dalal ñu fii affaire yi gën a naaj ñu ngi koy béggee waat bu baax a baax yamaan xum ay ñu ngi lay jox respect bu baax a baax gars yi one love pra